Fall man sa man sa ginnaaw soxna bëgg naa laay Fall ak bëgg sëñ maam Seex soxna Fat Fall saa boo xëyee bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi lazi mina talab ixlaasa sayin wa maraata adab man yanduru quluba wa sharaira duna lazi mina yakunu jahira suma salaatu bi salaamin yatbau ala lazi fiina gadan yushafau man bi fadail huda taxalla wa an radail rada taxalla sayyiduna kaasif an al gumma wa alihi wa sahbihi wa umma asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziaraaka bal ak ñaan sunu subhaanahu wa taala mu boole ñu jéggal leen ndokkeel itam ci weeru tedd wi ñu nekk di weeru ko di weeru rëy ngëneel wéete ko nag ci mboolam weer yi mu mbokkal yépp weeri mbokkal at mi di weer woo xam ne sunu woroom moo dogal ak defal ko itam ngëneel séddale ko nag ci ñetti fukk fukk bu ci nekk ak lam ca def fukk bu njëkk gi di yërmande fukkum ñaareel bi di njéggal fukkum ñetteel bi di ak jot ci sawar di weer woo xam ne itam ci la tànn wàcc alxuraan di weer woo xam ne la def itam laylatul xadr di weeru nag dimbalante di weer yokk lu baax borom xam-xam yëpp dëppoo ci nii lu baax baax na ci wépp weer waaye rawee na ci weeru koor lépp lu nit di def ci lu baax rek ci weeru koor la gëne tey jii nag ngeen àndak ak eh, tasukaay xibaar yi ñi xam si ñoo yaatal lu baax ñëw fii benn ci pénc yi Cheikh Ibrahima wala këram wala waañam wala wanagam nuñ ko tuddee rek eh, waa kër sëriñ Abdoulaye Fall Ndar kër eh, muy Ndar Fall kër sëriñ maam Cheikh Fall ibnu sëriñ Modou Abdoulaye Fall mu bëgg a wàccoog nag ci jotti leen ab liggéey liggéeyu Cheikh Ibrahima jublu ci lan nag mooy wa ama bi nihmati rabbika fa hadis ndax jamono mel na ne lu lënt waaye ku mel ne Cheikh Ibra ab liggéeyam warees na koo wane ndax wane gi koy wan nit ñi mooy tax ñu mën cee jariñu ndax moom ab xet xetlekat la woon bu doon ñëw ngir wane nit ñuy góobee yiwu yàlla kon tey jii dafa bokk ci bi ci nga xam nag lu mel ne dafay feeñ ndax si maam Cheikh Euh, kon ne xam na ne buñ ne weeru koor xel yëpp dem ci liggéey bu rëy boo xam si da cee war Baay Faal yi eh, njabootu Cheikh Ibra muy digal lu bàyyi ko woon ci Sëñ ndax Sëñ Tuubaa kat lépp lu mu euh, bëgg jaam ñi jariñoo ci rek Cheikh Ibra wan na leen ko lépp loo xam si mooy tax a wan jariñu Sëñ Tuubaa rek tax am cër yu rëy tam ci lislaam moo xam lu ak takku di maye wala ak dogu ak ngëm lépp Cheikh Ibra jàngale na ko weeru koor nag da cay gën a fés ndax su weeru koor teroo rek Sëñ Tuubaa ak li mu li li mu boot ci njaboot ci woy néew ju doole ay miskin nu sabil ay faqir Cheikh Ibra daa toggoo di leen jox moom ndogu te li gën a tànnee fu itam ci aw ñam la di jox loolu nag miin nañ ci njabootu Cheikh Ibra ndax dañ cee narganu boobu Sëñ Tuubaa nekkee ñu koy def ba léegi te Sëñ Tuubaa bi mu fi jógee léegi léegi téeméer at mat te defal nañ ko sëñ bi ci ak dundam ay yoon yoon di ko yóbbul ay xéewal kon a xam ne Sëñ Tuubaa dafa fonkoon weer fonk wu tolloog saa su daan mu yokk ak tabam daan digal mbooleem taalibe yi nga xam ne aju nañ ci moom fu weeru koor jegesee ñu ñëw woor seeg moom bari waa na ñoo xam ne seenub ziyaara Sëñ Tuubaa dañ ko daan dàkk ci weeru koor ndax weer la woo ne soo del see njaareem day mel ne nii ko Cheikh Ahmadou Mountakha di defe rek nga xam ne seex sépp ngi ñëw mbokk yëpp a ngi ñëw néew ju doole yi ñiy sàkku ñëpp dañuy ñëw si Tuubaa di woor seeg moom waaye saa suñu daan mës ñëw itam xéewal du fa manqué ndax Cheikh Ibra dafa takk woon ci di togg ay xéewal di ko fa yóbbu togg ndogu nag di ko yóbbu bu nu baat bi jaaxal noonu rek waaye itaamu taam la mooy leele aw ñëw islam ba ko jox dayo jox ko ahamiya ay ayat ci alquran wàcc ci ay ahadis wàcc dañ ci dugg si waaye tey jii nag suñ maam Cheikh moom ginnaaw uh, bay aw waaram ci sasam ndax ay ay ay jëwrinam a ngi fi ay waajuram a ngi fi mu ànd ak ñoom liggéeyu ndog yi mooy di yëkkati war a joxe joxe ko waaye de muy def nii mooy ndolleen tax saa su ñaar fukki fan ci koor gi dikkee mu lotal ay gàtt def inxiraan wootee njaboot njaboot njaboot gi dikk taalibe yi dikk mbokk julli yi dikk ngir mën a barkeelu ci liggéey bi Cheikh Ibra boobu loolu la ci jublu ndax fu ko neexee woon ci àddina rek mën na ko faa defee waaye mu indi ko nag fii nga xam ne fi la ko sëñ bi déyeloon di ko fi liggéeyee yàpp ko ci ay woto yóbbu ko lam ci jublu nag mooy yaatal tawsiyan ngir kenn ku ne ñëw xolli fi benn doomu soble sunu boroom fay la wala nga ronqat fi benn matt sunu borom fay la wala nga yëngal fikkin suñu borom fay la loolu la ci jublu mooy yaatal lu baax togg gi itam ni mu tànnee foo du ngir moom soxla woo xam sax ba xam nan la mel wala déet waaye nan ko togg rek innama nut'imukum li wajhi llaahi laa nuriidu minkum jazaan wala shakura ndax soo ko laajoon tey yi ni ko ñam yi kan moo koy xewloo digganteem ak yàlla am danañ la xaw ma fu ñam wi jëm su ko sëñ bi tuure baax na kum ko jox itam baax na kon loolu mooy jëf yàlla ndax ñu koy jëf am ci xejj ak seen sunu demoon ba jëbal ko sëñ bi sëñ wëlbatiku lépp këpp ko seen kanam itam ñoom mbégte ma nu amoon rek la ñuy am dara du ci wàññi kon loolu mooy iqtisaadiya xasd mooy kiy jëf nga xam ni yàlla rek la ciy dëgmal mu bëggu ci tur bëggu ci dara waaye nag su dee def na loolu itam di njaboot ci Cheikh ba nga xam ne yoon woowu lan leen fi bàyyal loolu lañ leen jàngal ci lañ leen yar nargal leen ci dana jaadu nag itam mu laabiire mbokk taalibe yi kon lii ak laabiire la wane cër yi Cheikh Ibra doon dundal ci lislaam di cër yoo xam ni demoon na buy bëgg a raaf ci àddina te bu raafee mën nañ naa bañ a séenut sax yërmande suñu borom te bokk na ci loolu ak toppe suñu borom dafa doon jàngale ak toppe def na ko digganteem ak malaayka yi bi mu sàkkee aadama itam def na ko diggante malaayka yi ak aadama yonente bu masa yu yónni itam jàngale na ko saw diggante saw xeet sant ñu topp la bi fi yonent yi jógee itam mu indi ñu war a sàmm diine sunu digganteeg ñooñu itam topp la mooy imtisaalu awaamir ak ittinaabul manaahi yi ginnaaw ba nga xamee ni ñu ñëpp leer na ni ñooñu doon doon nañ yonent bi zaahir ba baatina kon cër yooyu nag la Cheikh la ñoo di dundal bokk na ca yooyu cër nag lele itaamu taam nga xam ni euh, sunu borom subhanahu wa taala da boole ci farata yi ay ayat alxuraan wàcc ci mel na itam képp ku mu gërëm moom sunu borom fi julli yi koor yi natt azaka yi ak yooyu yëpp liñ bëgg mooy am ngërëmal sunu borom te am ngërëmam dalay leel ci àjjana àjjana ku fa dem sunu borom dalay xéewale dara nekk fa lu dul rek ak ak noppalu kon dafa bokk ci jëf yi gën a rëy te war ab jullit war mu jéem a góob am meññantam mooy lele aw ñam ngëneelam tudd nañ ko lu bare bare bari ci alxuraan ak ay ahadis ak waxtaani saxaaba yi ak nit ñu baax ñi bokk na ci ngëneelam bokk na ci ngëneeli leel faqiir ak miskin li ci aay rotal di ko jàngale aw itaama fii yawmin si mazgaba yatiman sa maqraba aw miskinan saa matraba suma kaane min alladina amanu wa tawaasaw bi sabri wa tawaasaw bil marhama ulaayka ashaabul man lel miskiin wala leel ab faqir sunu boom subhaana wa taala déele ni dina dëgëral nit ki ak ngëm dana woyofal itam ak muñ ndax wooy néew ji doole yi su dee ñi leen ëpp doole ëpp leen xéewal noo ngi leen di leel ci aw ñam loolu dana gën a delloosiwaat seen yaakaar dana gën a tax itam nu attan dogal bi suñu borom wàcce ci ñoom mooy ak néew doole waaye buñ leen seetaanee rek ñu euh, fi ñàkk ndax wallahu fadala baadakum ala baadin fi risqi fa ma lajine fuddilu bi raadi risqihim ala ma malakat aymanahum foom fii sawaun kon ginnaaw loolu day cër bu am doole ci lislaam Cheikh Ibra moom da koo tappoo Cheikh Ibra mësta nekk benn dëkk nit di fa xiif lépp lu mu doon jëfee rek bagage ci lislaam la waaye dafa ñëw fekk nit ñi di ko cof moom bu ñëwee day jël bagage ci lislaam jëfee ci ñoo xam si dañuy xam ne ndekete euh, jumtukaay bii bi ko ñëpp jëfee woon ndax tey ji weeru ko a nii am na ñuy def marmite di kër ak di kii waaye soo xoolee meelo bi ko Cheikh Ibra di defee ak bi ko njabootu Cheikh Ibra di defee looloo gën a tànneef ndax amuñu cible ci li ñuy def dañuy yóbbu rek ñam yi saa su demee ba àgg ci ki fi nekkal xawe ki fi nekkal Sëñ Tuubaa day daa koy yebluwaat ci ay oto yóbbu ba ci daara yu sore sore yoo xam ne alxuraan lañ fay jàngale dafa tabax aw ndaw ngir ëllëg ñu doon ay buuri diine ak nit ñoo xam ne dañoo jël seenug dund jox ko lislaam yor ay daara ci dëkk yu sori di jàngal ak njaboot di teel a xëy di bay di yar fan nekk lam sori sori sori ñami Cheikh Ibrahima yi moom dañu fa fekk ci weeru koor ak ñoo xam ne tey bu nu dëgmalee weeru koor dañuy xam ni biir moom saa su xiifee rek na ko kenn ko ne nat waaye nit ki saa su xiifee li xel mi njëkk a dem mooy lekk gu tànneefu fu ñu toll nit saabu xiifee rek boo laajee xel mi ndawal gu nu wàjji lay wax wala fois bu nu lakk wala inaam lu neex rek la xel mi xalaat xëy na nag lu mu am rek jël waaye ci boobu jamono moom lu tànneef rek lay xalaat waaye tey nit woor ba ngoon jot lu tànneef rek lay xalaate ndogoom am na nag ñu néew doole ñoo xam ni amuñu googu kàttan moo tax bu weeru koo dëgmale rek dañuy takk seen i fas yéenee dem Touba woore ji ci wetu jumaa ja wala woore ji ci ci ci kër sëriñ si ngir mën a jot ci ndogu Cheikh Ibrahima waaye moom tam tas yaakaar ndax bàyyi na fi njaboot gu jàmbaare goo xam ni lam leen rëddaloon ca la ñu nekk dañuy jël ci alal di ci di ci di ci joxe joxe ku ragalul ñàkk loj ci ay gilleem lu bari inxiraan ci ay xar lu bari jënd ci ay ganaar togg ko ba mu àgg te yow doo ci reer doo ci génne sa reeru kër doo ci génne sa añ waaye yaa ngi dem yóbbu loolu mooy jawharu lislaam Cheikh Ibrahima loolu la ñëw euh, tappoo ko bàyyi na ay xadis yu ci wàcc nga xam ne yonent salaam doon dinkaane Euh, leele aw ñam ndax wax na ni li tax nit gaaw a dugg àjjana ci la bokk lii tax mu nit mucc ci sawara la bokk te moom yonent bi déele na ni maa amana bii man baata shaabaana wa jaarahu jaa'iun ila janbihi wa huwa yaalamu bihi yonent bi nee na kii wax ni gëm na ma te fanaanoo regg dëkkandoom fanaanee xiif tem xam ni dëkkandoo bi suurul kooku gëm ma yàggal fi itam Cheikh Mortala Fall di xalifa sëriñ Ablaye Fall Ndar ak wasilaam we nga xam si ne mooy sëñ Cheikh Bintu ak ñi mu bokkal sëñ Modou Ablaye yëpp kon loolu la sëñ maam Sane woon nañ ko jot li mbokk taalibe yi ngeen xam ne jëf ji daal jubluwu ci dara lu dul jëfal ko sunu borom ngir li wax ni na ngeen na ngeen di joxe seen alal ci yoon yàlla ci lu bu mu ngi koy def ci la dëkk waaye waa alaaniyatan ngir jàngal ci nit ñi kon loolu moo doon kaddu yi Eh, sëñ maam Cheikh waxoon nañ ko jot li xam naa lu ci des itam ci ñun la waaye ni mu ko yéene ni mu ko ni mu ko waxee woon mat na sëkk di nuyu itam tey ziara mbooleem ñi nga xam ne ñoo ñëw ngir jël nag xew-xew bi immortaliser ko mooy fexe ba mu bañ dee waaye nit ñi jot ci ba xam ni lii mooy taxawaayu njabootu Cheikh Ibra ci weeru ko wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu aouzu billahi min asheytaani rajimi bismillahi rahmaani rahimi la hawla wala quwata illa billahi alil azim waltaf bina wa qawina wa kun lana wa hab lana xusnal xitaami rabbana wa salli ala nabi wa sallimi waqdi bihi haajata kulli muslimi mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar am mbégte toog ci barab bii nga xamante ni mooy pàkku maam Cheikh ma Fall fii ci Thiès ci kër gii nga xamante ni mooy kër Serigne Modou Abdoulaye Fall moom Serigne Abdoulaye Fall Ndar moom Cheikh Ibra waaye fekk goog doomi Serigne Modou Abdoulaye ji nga xamante ni mooy Serigne maam Cheikh mun sëñ Modou Ablaye mun sëñ Ablaye Fall Ndar di jàmbaari Cheikh Ibra Fall joo xam ni maamam Cheikh Ibra Fall lañ ko tuddee waaye jël jikkoy maamam Cheikh Ibra moo waral tey guddi gii di ñaar fukki fan ci weeru koor di bis bi nga xamante ni ci la maamam maam ma Ibrahima Fall gisante woon ak Cheikhul Khadim ca Mbàkke Kajoor mu di màggal weer wi yëpp waaye bu guddi gi ñëwee nag day gën a yaatal liggéey bi gën koo wone gën koo yokk ci liggéey bi nga xamante ni xam nañ ko ci njabootu Cheikh Ibrahima Fall gi ci weeru koor muy ndog yi nga xamante ni waa kër Cheikh Ibra am lante nañu ko njabootu Cheikh Cheikhul Khadim gi sëñ maam seex na di ci jàmbaar lool boo génnee ci biti xool togg yi macha allahu rabbi yi gis ñi nga xamante ni ni la ko waa waañu di doxale xam ni positif ak xër ak jom ci la ko maam sëñ maam Cheikh Ibrahima maam seex mii di doxale ñaanal ko yàlla itam eh, xalifa mm, woy juram di sëriñ Cheikh Bintu mun sëñ moo Ablaye sa borom gën ko fee bàyyi te wéral ko waaye ñaareel itam sëriñ Jili Kinde mi nga xamante ni moom la ko yàlla booleel ñu bokk wenn wayjur wu góor ak wu jigéen muy sëriñam di buntam ci kër Cheikh Ibrahima Fall yàlla gën ko fee bàyyi te wéral ko ci darajey sëñ Tuubaa ak maam Cheikh Ibra ñaanal sëriñ maam seex yàlla na yàlla gën koo wéral te bàyyi ko fi ndax lii muy def ku ne xam na ni jom la ku ne xam na ni positif la ku ne xam na ni ak taalibi la waaye ku ne xam na ni itam bëgg dimbali jaam yàlla yi tax mu dajale leen fi ci bisu ñaar fukki ci weeru koor bi ci liggéey bi nga xam ni maam Cheikh Ibrahima Fall ma ngi ko doon defee ca njaarim ci ndigalul Cheikhul Khadim ci weeru koor bi kon noo ngi ñaan Serigne maam Cheikh yàlla na ko fi yàlla gën a bàyyi yàlla wéral ko te dolli kattanam dolli dolli wéram ci barke Cheikhul Khadim nuyu presse yi nga xamante ni ñoo fi daje yëpp muy waa Thiès Prestige nga xamante ni fa tabaarakallaahu ku ne xam ne DG Pape Doumbé yaa digganteem ak Serigne maam seex muy xaritam di seriñam di soppeem di wëllëreem nga xamante ni digganteem ak sëñ maam Cheikh jamono bu ne wéet ak wéttali ko da ciy seere seere yu rafet kon DG Pape Doumbia ñu ngi koy ziar moom itam ci guddi gi di ñaan sëriñ bi mu gën nu koo ñaanalal sama borom gën koo kattanal ci barkeb Sëriñ Tuubaa waaye di itam waa Fayda TV yi nga xamante ni ñoom itam ah Fayda TV moom bu nu ko tuddee xel yëpp dem ci sëriñ Maxtaar Njaay taalif nga xamante ni ku am taxawaay la moom itam ci dëkk bi yor site internet boo xamante ni réew mi ak bitim réew mi ñu ngi ciy jariñu te lim ciy jàllale lépp di ay njariñal kese kon noo ngi ñaan yàlla moom itam sëriñ bi gën nu koo ñaanalal foo xamante ni àdduna sépp danañ ci mën a teg seen bët ci barke Seexul Xaddim ñaan yàlla sëriñ bi daal yàlla na fi yàgg am sëriñ am ni Modou Mbenda mi nga xamante ni mooy xalifab Cheikh Ibrahima Fall yàlla gën ko fee bàyyi te wéral ko ci darajey sëñ Tubaa sëriñ bi woy juróom yu baax yi mu feggool penc bi yàlla leen fi yàlla ba gën a bàyyi muy sëriñ Cheikh Ngunda moom maam Saliou moom Cheikh Ibrahima Fall waaye sëriñ Mbacke Fall moom sëñ Modou Moussa Fall moom Cheikh Ibra waaye njabootu sëriñ naa Fall gi nga xam ni jamono bu ne ñun ak ñoom ñun ñoom ak moom ñooy ànd du nu tàggoo buñ ci tuddee Serigne Fallou moom Serigne Cheikhouna dana yóbbaale Serigne Cheikh may xalifa ba ak mbooleem ñi nga xamante ni ñoom la bokkal maam Cheikh Ibrahima Fall waaye nuyu njabootu Serigne Sidi Fall gi Serigne Modou may xalifa ba ak Serigne Omar Fall ak mbooleem ñi mu bokkal Cheikh Ibrahima Fall ñëpp teg na ci dëkk bi waaye nuyu waa kër Serigne Mbayloo yi nga xam ni fii ñu toogoon ñoo fi toog léegi fa tabaarakallaahu di Cheikh Mouhamadou Moustapha Guèye mi nga xam ne ci xam-xam bi ci yar bi ci teggin gi ci taalibe gi ci bëgg lu baax ki ak mën a wax wax ju rafet gi moom itam ñu ngi koy ñaan lu baax ci barke sëñ Mbaye Lo maamam yàlla gën koo wéral su ko defee fu la ñu yemale sunu kàddu rek bàyyi li ci des sunu soppe suñu xarit sunu wëllëre di grand sëriñ de Thiès di soppe sëriñ bi di xaritam yeggale li def ci kàddu yi nuyu alaaji Cheikh Fall fa tabaarakallaahu moom itam ne ci caméra caméraman bi nekk ci prestige macha allahu rabbi yàlla na yàlla defal leen jàmm alaaji cheikh yéen itam te defal leen sutura ak Moussa Mbaye nga xamante ni taalibe yi sëñ Tuubaa lañu yoo xamante ni liggéey sëñ Tuubaa bi duñ ci toqi waaye alaaji Modou Aïssa mi nga xamante moom itam kenn la ci borom daaru ñu ngi koy ñaanal yàlla gën koo defal jàmm su ko defee ñu bàyyi leen ak li ci des grand sëriñ mu yeggale ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu jërë ngeen jëf aoudu billahi min asheytan rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin walaqibatu lilmuttaqin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa wa sahbihi wa mbokk yi ginnaaw bu ñu santee suñu boroom subhanahu wa taala du julli ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam tabarakallahu tey ñi ngi ci péncum yi nga xam ni moo di ci péncum Thiès di péncum maam Cheikh Ibrahima Fall ca Madina Fall tabarakallahu ñëw fekk ci suñu soppee suñu xarit suñu sëriñ sëriñ maam Cheikh Fall moom sëriñ Maodo Ablaye Fall Ndar moom maam Cheikh Ibrahima Fall tabaarakallaahu sëriñ mam Cheikh tey jii mu tombeek ñaar fukki fani yi nga xamante ne bii sëriñ tubaa ci la gisante woon ak sang bu tedd ba di maam Cheikh Ibrahima Fall mu jëbbalu jox ko boppam tabaarakallaahu tey sitam bu baax bii ñu fekk si ko fii ci daara ji tabaarakallaahu mu teg foo tollee fële seen mbanay ni mu rangaloo nga xam ni daal am jom rek a wóor ku seen mba mbananay mbanay ni mu rangaloo nga xam ni bàyyi lu mat bàyyi ku mat a ko gën te tabaarakallaahu sëriñ mam Cheikh jëf na tey jëf joo xamante ni bi jëfi kilifa la waaye ku ñëw fii tey ci pénc mi sa yaram dina daw ku ñëw ci pénc mi tey doo am foo sa teg sa tànk ngir yàlla jëmi sëriñ maam Cheikh Fall mi nga xamante ni bi mu ngi fas yéenee togg ndogu fas yéene ko yóbbu nag tubaarakallaahu ca sangam bu tedd ba kon ñu ñaan faal yal na yàlla gën a guddal fanam yàlla gën a wéral cëram yàlla gën koo mënal yokk kàttanam ba bu déwénee fépp foo toll ci pénc mi rek saxaar di fa jib ñu naan lu xew ñu naan Serigne Mame Cheikh Fall mooy waajo yóbbu ndog yi suba ak jàmm ndax Serigne Mame Cheikh Fall ko xam xam ne ndaw la de waaye nag jëful jëfi ndaw jëfi mag lay jëf macha allah am taxawaay su wootee julli di daañu ñëw murit di ñëw xaadir yi daañu ñëw ibaadu rahmaan yi daañu ñëw waaye tiijaan yi sax daañu ñëw loolu nag ngir yàlla ak jëfam waaye ngir yàlla ak ni mu mën a maanaam laamisu bépp jaamu yàlla sëriñ maam Cheikh ci loolu rek lay dox li maamam Cheikhul Xaddim ni woon falaa tuaadu man raaytum faa u yu urju laa ilaha illa allah sëriñ maam Cheikh ci loolu rek lay dox kon ñu ngi koy ñaanal Fall lii nga xamante ni moom la war a fas yéene jël war koo yóbbu ñoom mi ñu fas koo jël jëm koo joxe siti siñ Tuubaa ya ñu jox ko ñoom it ñi nga xamante ni bii ñoo umaloon yàlla kooram gi kenn ëpp leen ci koor démb wax naa ko ni koor am na doole de waaye ki woor ba ngoon ki la dogal ah ko kenn amul payam ki woor ba ngoon ki la dogal moo la ëpp ab yool xam nga lu alquran wax wa yutimuuna taama allahu bihi miskinan wa man wa asira ma am nut'imukum li wajhillahi la nuridu minkum jasaan wala sukura kon Serigne Mame Cheikh Fall Baye Fall yi ku yóbbu bàyyi leen xel li waykat ba naan yoonu Baye Fall yoonu yàlla la boo ci mënta wax lu baax na nga ci maandu Serigne Mame Cheikh yal na yàlla gën a dolli sa jàmm tey nag bég nañu man grand Serigne de Kees maa ngi ñaan suñu borom yal na yàlla gën a dolli sa kattan ku ñëw ci penc mi de yaramam dina daw ndax foo toll seen bana yi di di di di xeeñ balaa balaa sa seen saxaar si di jolli kon fal yal na yàlla gën a dolli sa jàmm wa ma zalika àlallah bi aziz wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu